ah jërë ngeen jëf mbokki internet 313 digital gannaaw ba leen nuyu amaat mbégteeg contentement di ak geen ci benn xabaar bu neex rek boo xam ni kon daal di na fi rot ni ki sànq dañuy dem fële kon ndax alxayri rek moom moo daal di jóg journaliste bii di wuyoo ci turu Astou Dione nekk fële ca 2STV kon moom moo daal di dégg alxayri mu doon xibaar bu neex boo xam ni rek daal di na fi wàcc ñu koy ñaanal sëy bu barkeel kii di Astou Dione nga xam ni kon kenn dootu ko présenté ci milieu journalisme bi mu nekk ci rek. di ci defal liggéey bu am solo moom mii di borom matin bonheur kon daal na am bonheur rek ni ki tey ndax dafa dégg alxay rek maanaam madame Seck kon a dinañ koy takk ci faratas yàlla ak sunna su Muhammad mu doon ab tontu boo xam ni rek daal dina koy jox li nga xam ni doon nañ ko tooñe génn kilifa Pastef bu nekkee fii ci réew mi kon tontu li daal dina leer ndax loolu kon mi ngi wane ni amul benn yoon ndax dégg na alxay day te du kilifa googu kon moom moo ko daal di takk waaye ñii di waa 313 ko ñi ngi lay souhaiter rek heure minage di la ñaanal di la ñaanal njaboot gu barkeel suñu borom jubóole la ak sa borom kër waaye di ñaanal aussi di bépp journaliste bu jigéen boo xam ni kon na bëgg nga dégg alxayri ci at mi suñu borom defal la ko mu saw saawaan baawaan ba wàcc si ñoom ñëpp rek jërë ngeen jëf